waaw ah, abe ndeysaan mbaa léegi defal nga defal nga sa xol bi ah, waaw tey dafa mel ni jooy dafa gën a yokk abe na la topp kon abe mbaa yaa ngi may dégg rek maa ngi lay dégg kay abe tey jooy dafa gën a métti yow kay musal ñu ci jooy kenn warut a jooy yow jooy kenn du ko jamat waay ah waaye nu may def abe chaque jour maa ngi dëkk ci ay problème maa ngi nii ma war a um carême bi aw ma xaalis pour jët pour defar nga la te maa ngi nii ay gan rek laa fi nekkal ngi nii suma Mm-hmm. waa yow boo ko mënee. carême sax est-ce maa ngi carême kay. yaa ngi carême bi ñu tàmbalee ba tey waaye damay ragal sax mu dog parce eh, maa ngi xalaat rek nu may def nu may defal suma gan yi. waaw léegi comme que amaloo ko kay. Mm-hmm. da ngay dem ci jàngu yi ci mees yi. Mm-hmm. waaw da dem rek boo demee nga diis sa soxla nank nga diis ko nank. dinañ la ko am loolu la teg rek loo xam ne di nga mën a def lu yem rek. fu mu nekk nii sax maa ngi jàkkaarloo ak jàngu bi maa ngi jàkkaarloo ak cathédrale bi nekk fii. waaw loolu ay jooy faju ko ndax munoo jooy ba nga lax gën sa bët yi munoo jooy ba nga lax gën sa gémmiñ gi muñal kay. man kay kay maa ngi dama jommi rek abe jommi naa trop. trop trop ci presse bi laay jël nii pour pour mu ñaanal ko man a jomal abe sa jommi bi kay yem ci yow rek bañ maa jomal ah boo amul kay ah. muñal tegu ma ne ma ne ah dina dem kay am na loo xam ne kenn tegu ko kenn mën nga ngalax munoo defal caakiri defal wuy munoo bàyyil seeti leneen waaye nga ngalax nga rek te soo nekk fi caakiri nekk fi leneen nekk fi ah nit ku man loo de loo mënul bul ko teg sa morom ñu ngi nuyu bu baax seer fe seera fi fay seere fi Diouf seere fi Diouf Alphonse Latir Kama kontaan na torop ak Pierre Badara Gueye ña nga ca ndondol waaye Marcel fay ak Eloi Mbassou Faye ak Paul Diouf bu fekkee ne am na ne ci bi ngeen dugal ko ci ligne bi. wala ngeen jël ko ci digg bi alo Abidjan. waa na nga def. Abidjan man la man la Kona yaw yaw. wax naa la ba tey bul ma tuddee capital man tudduma Abidjan abe ah, laa tudd. abe abe. Ah, waxal abe. abe. noyil. ah waxal Jean. Jean. waaw waxal abe Jean. ah, ah Abidjan Abidjan. waaw la kay waaye Abidjan rek mel na ku dëkk yow. Abidjan war a ku dëkk Dakar war a benn dëkk ah. Abidjan. maa ngi lay déglu. man sonn na trop. yow de bas bu ne nga sonn. waaw sama jël dafa maa sonn am na benn wàcc mi ngi liggéey TFM. waaw Pierre Pierre Da Silva moom dafa jënd mbaam pour fête Pâques bi. waaw. sama jabar bi léegi na nee na man ma jënd mbaam. waaw léegi guddi day day tëdd ak tubéy tubéy laay sol di teddi bu ma ko wax du ma fale nee na Pierre Pierre mu liggéey TFM dafa jënd mbaam ñaari mbaam laa jëlee ah man aw ma la la def léegi na yow dëkkandoo de déglu ma gis nga yow. saa yoo tuddee am problème ndax yow doo def loo mën mu yow Pierre da Silva bu jënde ay mbaam te télé bi muy liggéeyee ñu jox ko mu jënd yow amuloo liggéey sa jabar lu muy xoolee ci mbaamu jàmbur ba lay wax ne util mbaam. non dama ko eh, abe. maa ngi lay dégg. dama ko wax ni TFM dañoo may ñaari mbam Pierre Pierre da Silva. fa ngay liggéeyoo may ñaari mbam man liggéeyuma man aw ma xaalis. c'est ça yoon ci mbaamu Pierre da Silva yooyu waa TFM jox ko da nga xamul ndax waa TFM dañ ko koy commandé ndax mu lakkal leen ko war a dafa am xaarankat yoo xam ne dañu bëgg a ñëw këram lekk fa mbaam yoo gis nga bu kere chrétien day yem ci loo xam ne dañ koo ko yem loo looy xoolee bëtu mbaamu jàmbur teg lijjanti sa mbaam. waaye sama jabar la. te eh, dama guddi dama ko waat ba quatre heures du matin falu ma la dama tëddi suuf dana wàcc suuf wàcc suuf dama yëg ci kaw dana dama bay yëg ci laal. ma ne yow loo am amoo mbaam lan nga am. ah eh, eh, dama dama am deux mille cinq cent pour jëlee benn ginaar nee na moom. ginaar mbaam lay yaa ñàkk jom det det det det det yow nga woor quarante jours sa jabar gis ay mbaam nga waroon sax góorgóorlu am benn mbaam nga naan ginaar laa am yow xam nga ne ku woor quarante jours lekkul lu neex bàyyi lépp lu neex. di ut bakkan loo xam ne ngir jaamu yàlla rek amoo loo koy tëralee lu dul benn ben ginaar dong yaa ñàkk jom yaa ñàkk kareem yow mii yaa ñàkk jom dëgg te xam ne kareem dañ koy waajal kenn du xaar ba kareem jot nga yor jikko kareem bu kareem weesoo nga dellu ci li nekkoon leen jàpp jikko yi nga xam ne moom ngeen lengoo ci kareem gi wax li ngeen war a wax te yem fi ngeen war a yem bu leen dugg ci coowu jàmbur bu leen soxor bu leen siis dee leen partagé bu fekkee am na ku ne ci lii bi war a mun a ci ligne bi ngeen bàyyi ko mu dugg direct ñëpp dégg ko ci ligne bi allo. allo oui. waaw na nga ah. ma ne yow laay déglu de kooka la. yaa ma woon yaa kooka la. nga ne. yàlla yàlla kan. ah yow kay yaa dugg ci ligne bi ligne bi dugg ci sa biir ligne ndax ku ne am nga sa ligne ñu bopp waaye ñun dañoo ibi suñu ay ligne bugg ko dugg ci ligne bi boo duggee ci ligne bi nag di laaj ki ne ci ligne bi kan mooy wax ki ne ci ligne bi kon ki ne ci ligne bi nu muy xamee ne ligne bi koo dugg ci ligne bi ligne bi kay dañ koo ubbi pour ñi nga xam ne ñoo ne ci ligne bi wala ñu ne ci ligne bale waaye mënoo jékki-jékki rek ligne bi woo la kookan la kookan la waaye yow ma ne gënal ma kii comme que mënu dugg ci ligne bi am na ku ne ci ginnaaw ku topp ci ligne bi ndax ligne bi dafay saturé su ko defee ñu nuyu Frédéric Ndiède Faye Jean Louis Waly Dioum John ak ki nga xam ne mooy Thomas ak Bruno Tine ñoom Pierre John ak Albert Sène ñoom Michel Yigo Dieng <laughs> ñoom ñëpp ña nga ca ndal ndal di nuyu bu baax tamit Elou Mbassou Faye ak Paul Diouf waaye nag ñu nuyu Jagaan Ndol Ndol mi nga xam ne éleveur mbaam la te am parc mbaam ca booru église Saint-Maurice danger ca garage su Géejawaay bu fekkee am na ku ne ci ligne bi wala mu ne ci ligne bële ngeen bàyyi ko mu dugg ci ligne bi. salaamaaleykum salaam. Abe bu taata la. waaw kooka nan la. Senghor Senghor Senghor la ma sant Senghor. ah yëkkatil baat bi ma dégg la. man la daaru fiyee seroor seroor seroor lam sant ba maa ngi kontaan torop ci def de. ah wax nga dëgg. maa ngi la ñaanal rek nga am gudd fan ak man maa woowoon fan yii yore place la est-ce que mën ak dëxën ak ah. man dama woo mu ma la ak de abe. Ah, yow. yow yaa fi duggoon keroog woote ne da ngaa lekk gerte teg ci akara teg ci xoomala nag lan mu jéem a fe. boobu la doy. léegi mbaa bàyyi nga tegle bi. ma ne ko bàyyi na loolu de léegi bàyyi na ma ne karam bi léegi la naa ko def ba mu bàkk léegi dama la ñaanal yow nga am gudd fan ak wér. amiin ñu bokk. di wax yaa ngi fekk karam yu bari yu bari yu bari. amiin amiin wax dëgg yàlla kontaan naa dégg nga. Normal ñu wax bu kontaan bu ma lan mooy sa problème. déedéet man dama doon siyaare rek. ah da nga doon ah wax kontaan ci yow dégg nga. déedéet waa jërëjëf waa. bi. waa na xale yi lekk ba suur na xale yi lekk ba suur ngeen seeti malaat yi balante ak dem ci ñi nga xam ne ñooy jullit yi te feete leen camoñ war a ndeyjoor ngeen dëkkandoo dëkk bu rafet te ñoom bu ñu ayee ñu koy defante ak yéen te yàkkal nag na ngeen di yàkkal nit ñi nga xam ne dañ leen doon yàkkal même bu la nit yàkkalul te nekk koo xam ne gan la ci koñ ba nga dëkk nang ko yàkkal fi kaw nga mën ko bul def loo mënul bàyyi ba carême jot ngay lem tigi dege di leb fi di dugg ci loo mënul carême passé nga koy fay kenn defuloo ko kenn bu fekkee am na ku ne ci ligne bi wara mu ne ci ligne bale ngeen bàyyi ko mu dugg ci ligne bi allo allo yëkkati sa baat tuuti waay Abidjan Karim bi moo ma jàpp rek pourtant maa ngi wax bu baax. ah wax ga dëgg wax nga dëgg heure bi day métti na def. maa ngi ci ça va man la Marie Christine. ah Marie Christine mbaa woor mbaa Karim nga. waaw maa ngi ci Karim bi maa ngi góorgóorlu. jërëjëf waay. adhésion ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf ñoo ko bokk. ginnaaw yàlla yow yaa tax koor bi koor nañ ko ci jàmm. ah kat ak jërëjëf. defal nga ñu ay kiraama teg nga ñu ci diine. wax dëgg yàlla amuñu dara luñ lay wax kontaan nañ bu baax. a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal na la Yeesu Krista fay. jërëjëf Christine amiin ñu bokk ñun ñëpp jërëjëf. jërëjëf di nag moom incha allah sa kër ak sa bépp mboo boo xaritu abbe bu ñu togg nga lax man maa leen di yeesal nga lax. <laughs> yow de xam naa ne ñoom abbe abi abi Jean bu ko yëgee ak abi Rose dinañu kontaan ñu ñu bëggee ku leen di yàkkal ngalax baasa ngalax dina am koko dina am koko dina am raisin eh bu ci banaana de lépp lépp laa ci def lépp lu koy neexal muy rek dama ko ci def buy ba mu saf buy buy buy ren ngay wut wara buyu daaw ngay wut ba pare ma jël tuuti meew def ci ndax ñi nga xam ne dañoo am estomac seen xol yi du tàgg. <laughs> yow de wax dëgg yàlla tas nga yow yow yow moom toj nga fi toj nga fi toj nga fi waay. waaw ah, bu loolu weesoo damaa bëgg nag man dama bëgg a nekk sœur bu lépp passé damaa bëgg nga solal ma ma nekk sœur. bu soobee yàlla incha loolu yëpp yàlla la. dégg nga kontaan nañu torop ci yow di la wax ne yéene bi nga ñu yéene ci yàkkal ñu ngalax gi bu man code bi may defal moom bul ci def banaana ndax man banaana fu ma ko lekkee rek damay <laughs> xel ci reetaan de ndax dafa neex te cuqute tuuti <laughs> su ko defee ñu wax leen ne na ngeen jekkal jikko yi te li ngeen carême bi def loo nii ba ngeen yaru guney chrétien yi ngir yàlla bu carême bi weesoo na ngeen continuer jikko yi loo leen am partage solidarité tey nemmeekuwante tey dimbalante tey yem ci li nga war a yem ngeen wàññi lool li nga xam ne mooy xuloo amul njëriñ tey topp li nga xam ne moo moo nekk ci yoon bi leen di teg ci yoonu leer bu kenn lekk loo mënul nag xëy di lekk ngala bu fekkee am na ku ne ci ligne bi maa ngi ci jàmm kooka la man la Odile Odile na def mbaa yaa ci jàmm ngi ci jàmm yàgg naa si ligne bi torop waaye jaloon na. oh ah, war a woon yàgg ci ligne bi. yàgg naa ci déedéet nee naa woon it Odile. waaw yëkkatil sa baat ci kaw ñu dégg la. waaw. waaw. Euh, Abe. waaw. ñoo ngi kontaan torop. ci kiraama yi ñuy defal. Ah, jërëjëf moo tax yëguñu koor bi. wax nga dëgg ñoo ngi kontaan bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. waaw di la ñaanal euh, déwén nga def lu ko raw. ma waaw mbaa defoon nga carême yow carême nga woon. waaw def naa yëpp kay. amul dara lu mu wàññi ci yow jeexuloo sa. sa non non wàññiwuma yëpp. jërëjëf yëpp def naa ko. jërëjëf. waaw def naa ko ni nga ko waxee topp naa ko ba mu jeex. waaw kay ma ne. waaw na nga moytu ngalax gi dégg nga. ngalax bi waa ngelax moom xiruma si. Uh-huh. waaw moo tax na ma bëgg la defal benn surprise ku suba. ban surprise. waaw dama ma amoon benn mbote bu ndaw. mbote léegi waaw ma bëggoon ko defal la ko monsieur bu baax. jënd ko. <laughs> ku la bàyyi yow tamit ku la bàyyi. ah bi lay abbe jaral nga ñu ko dañoo kontaan yow ndax kiraame yi ñuy defal. ku la bàyyi sa suma kenn dara waaye ku la bàyyi yow tamit. non bàyyi li ma def ko abbe. bilaay bilaay da nga koy lakk wala da nga koy benn. dama koy dama koy lakk dama koy defal marine bu baax. si sori ci lakk bi. andil la ko ci da nga ciy def moutarde wala. dama si def moutarde defal la si yëpp. ci sori defal la soble bu ñor këjëg yëpp. defal la ko defal la ko si ba mu baax. yoo tooy na affaire rosée daf may xal di tooñ bàyyi li ngay def waay. tooñu ma adde dama la koy andil ah, la ko andil suba nga xéwlu si bu baax. yow kese laa bëgg nga xéwlu si. waaw na bul ko lakk nag ba mu ñor xobu dégg nga. non bàyyi ma lakk ko ba mu ñor ndax soo koy lekk mu neex a jàllale. Hmm, ah doo ci def ci def mayonnaise mayonnaise de. bàyyi ma def si mayonnaise. Eh, eh, yëpp laa di def ak moutarde eh, sopp ñorul. doy na doy na ku mel gëne ko ci ligne bi gëne ko ci ligne bi Pierre de Silva ki dafa yàq sama kere kontaan ndax xëy subatel ba ngoon doo lekk wax dëgg yàlla buñ la waxee ne mën ngay tàmbali lekk nag moom da ngay kontaan man mi a xam ne may abésan du ma leen ne bu dara gis nga lekk sax ma ci waaye gis nga bu ma xiifee dëgg dëgg dëgg dëgg ñeenti ginaar rek mooy tax ma commencé lekk nag bu ma lekkee ñeenti ginaar teg ci ñaari pooju xar rek naan sama ñeenti barigo ngala wóor na yàlla soogay tàmbali am appétit kon ba tey bu fekkee ne am na ko ne ci ligne bi wara nga seet ko ci ligne ba le bu fa nekkul nga xool ligne bi noo koy ibbee ba nit ñi dugg ni ñu ñaanal ñëpp pagu jàmm ñii tukki nañu xool oto yi ñuy te tamit nañ ko préparé préparé boo xam ne borguleen ci topp nañu nekk loo xam ne mu tegu ci ñun partagé baalante ak ki ñuy mujjee jël nag dañu koy jël rek ndax waxtu ba ñu ñuy def mu xool nag ki nga xam ne mooy dugg mooy tey li nga xam ne mooy seen waxtaanu Karim bu fekkee am na ku ne ci ligne bi nga jël ko ci ligne bi. waaw kooku kan la. Ah, ah. ah Samba Samba kii loolu Samba kii ak kay. ah Samba Samba la. moom de da nga waxoon ne da nga da fi nga duggoon. Ah? loo may doye da taxawoon fii ne nañ la defal ay mbaam yoo xam ne day tol ni nag ma defal la ko boobu ba gisuma la. waaye sant kay yow rek lay déglu. yow kay nee naa bi ma defalee ab maam ba ñu nekk nag bu pare tuuti kay man naa ba kay say mbir kay dama cee kaamu tuut dara kay. loo wax nga ne. ma ne say mbir dama cee kaamu tuut dara. xam nga Samba yow ne Samba yow ne Samba yow na fex nga tappale kan nga sàcc nga xam nga lu tax nga boole ñetti yëpp fii nga ne ma danga am ay nag yu réer ma daa def kii raa ma nag ñu ne déet na waaye nga ne da nga bëgg nag yi mbaam yu ndaw yi daa dee nekk ay mbaam yu mag ma defal la mbaam yu ndaw mu nekk mbaam yu mag Laal boo ko tey yow yow ka yàlla kay maa ngi kay di góor bu far yaa ngi ah, yooyu lañu nag amatuñu benn yaram kay yow dafa mel ne nagu yàqu yàqu nag nga indi kay waaye indi woo nag kay yàqu nag. rek ma jàppal li nga jàppoon ma jàpp li ma jàpp nga delluwaat ci li nga jàppoon ma jàpp ci li ma jàpp te ñu xool ndax yàlla du ñu àtte. war kat bu bon nga demal rek àdduna ngi suñu kanam. waaye kay fu ma nekk laa jàpp léegi kay fu ma nekk laa jàpp kay kay yow kay bul tax mu wax yow kay bul tax mu wax de. yow demal rek man ngay def nii man ngay def nii di ma di ma ke kanto. yaa ka ba dara ma ay nag. boo ko paree fa ngay jaaree xal dootoo waxati gënal na ko ci ligne bi kooku yaag naa ko <laughs> dama koy baal dama koy tiital rek diggante diggante séeréer ak la. may am mbégte ak contentement di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ligne bi war a ñu duggoon ci ligne bale. carême bi nag tëj nañ ko tey tey wax nit ñi nañu moytu ci ngalax yi ay ngalax yi ay moytu leen ngalax munoo xëy suba teel lekki ndekki naan kafe ngalax jot nga teg ko ci ñu joxaat la ngalaxu Pierre nga naan ngalaxu Jean nga naan ngalaxu Njegaan nga naan ngalaxu François nga naan bu Paul nga naan bu Marcel nga naan bëgg a jaxase ngalan yëpp yoo jullit bi laay waxal jaxase ngalax yooyu yëpp yëpp yëpp koy ngalax ngalaxee sa kol gi daal di toog naan way ngalax yi li ma def yaa tooñ sa bopp nga ngalax doy na war a ñaar koo naanee bu ma bu mari bu ngoonee nga naan bu Paul waaye boole bu Marie bu Jean Pierre bu Christine yëpp mu jambaajo nga toog nag guddi gi jot au lieu nga dem mees nga naan nga lax yee ma téye loolu nag wax dëgg yàlla waruñu koo def jullit yi tamit bu leen mere chrétien yi nga xam ne dañ la doon yàqal te yàqaluñ leen adduna dafa doy waar dëkk bee métti te nag ku ne la nga ngay duggee marché ñuy ñaan yàlla wàcce xéewal fépp ci leeru Yeesu Krista lépp mot ñu delluwaat ci jàngu yi topp jikko yiñ ci jëlee ñu nekkoon ci ligne bi bi ñu tàmbalee waxtaanu kareem bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu may leen tuuti kiraama rek tàggatoo ak yéen di leen ñaanal Karim jàmm di ñaanal cardinal bi nga xam ne mooy Théodore Adrien yàlla def ko jàmm jàmm gu wér mu ne kon abésan ni faaxaane kooko tege abésan faaxaane abésan kooko tege abésan abésan ni gàkku tas yaakaar gi lekk maa ngi ga way abésan walu ma dee abésan mali gàkku faaxaan ko tege mali gàkku